jërëjëf mbokk internet yu sax foo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen comme ni ñu koy defee gannaaw ba élection yi euh, desee ay fan euh, li nga xamante ni moo di élection yi nag nekk dimanche comme démb ni ñu deme woon fële ca Médina euh, ci sondage bi nga xamante ni ñu ngi koy def démb nag dañu jëloon ñaari nit muy ki nga xamante ni moo di amadu Ba ak ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye fay waaye gis nañu li nga xamante ne ni moo di commentaire rek yooyu ñu ne pourquoi pas ñu def li nga xam ne moo di 19 candidats yi nga xam ne ñoom ñoo war a dem euh, li nga xamante ni moo di élection loolu nag sabab suñu ay tànk tey ñu ñëw fi la ci Colobane ci 19 candidats yooyu nag ñuy xool euh, ñan ñoo ci ëpp li nga xamante ni moo di ay nit ci terrain bi euh, gis nañu démb nag ki nga xamante ne nii moo di Bassirou Diomaye Faye moom moo jëloon li nga xamante moo di favori bi ci li nga xam ne moo di sondage bi nga xam ne def nañ ko démb ci fee ca Médina tey nag 19 candidats yi lañ jël kan moo ci ëpp ay nit dugg ci biir euh, Colobane daal di gisee ak ñi nga xamante ni moo di askan bi tàllal leen micro ñoom tamit ñu daal di ci wax seen xalaat ndax ni ma koy waxee saa su nekk seen mbégte mooy suñuy yitte ba tax li leen di yitteel wala li nga xam ne yéen a koy mbébét rek loolu la ñuy wàcc ci terrain bi defal leen ko xalil bu baaxee rek ba daal di dugg ci biir gisee ak askan bi daal di leen tàllal micro ñu daal di waxtaan ci sondage tey bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay soxna si. bi naka la. man Mansour. Mansour tey ñuy def sondage fii ci Colobane ci 19 candidats yi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem élection euh, dimanche incha allah yow kan nga ci àndal. waaw man de ki nga xam ne moom mooy champion bi rek lañ àndal. champion bi. te xam nga champion bi moom ku nekk xam na ko mooy waa ji rek Bassirou Diomaye fay mooy ki ñu Seydina Ousmane joxoñ te mooy ki nga xam ne moo bëgg réew mi te moo bëgg développement Afrique pour Afrique développer jëm ci kanam pour ñu jénn si li nga xam ne ñun suñuy maamaati maam ñoo ko doon dund. pour ñu génn ci loolu ki nga xam ne nag Seydina Ousmane joxoñ nañu ko mooy Bassirou Diomaye fay dañuy dégg nag yenn kilifa yi yenn mag yi nga xam ne daanaka sax wax yoo xam ne xale bu am deux ans sax du ko wax mooy ñu naan kii xale la mënta jiite réew yow ki am 45 ans ah kooku bu mënula jiite réew kan mooy jiite réew ñun ñoo ngi ñuy wax Macron ba muy jël France ñaata année la amoon 39 ans moo dirigé France moo ngi ci dernier mandat am la ñu wax de waaw kon pourquoi Bassirou Diomaye Faye mënta jiite Sénégal ma ne la ñaata diplôme la Bassirou yor ci Sénégal nekk fi nga xam ne mën nañ fa former ay président ah jiite li nga xam ne laa la wax mën na former ay président ñu ne Bassirou mënta nekk président Sénégal parce que Bassirou li mu wax bari na ndax projet Pastef taarix la rek taarix la mooy histoire la loo xam ne du fi jug ba ilaa la xisaab ku bëgg a jekk da ngay topp ci taarix boobu mais ku bëggul jekk nag doo ci topp. mais dama dégg ñu ne Idrissa Seck sa xarit la. sa Seck yàlla bu mu am parce que loolu duma ma si complexe sax ñaanu ma ko yàlla dañuy wax naan Bassirou mënul communication Idi sax bu doon communication la kon ñun lañuy tànn rek Idi mën na communication mais dëgguwul mën na wax. wax ji ni leer na mais dëgguwul ñun nag ku dëggu la ñuy xool ku dëggu nekk na ci Bassirou waaw mais Amadou Ba dëgg la moo ko ñoom ñoo bokkoon fu ñu jaar mais nag moom sama waay la waaye nag dafa am loxoom lu ci taas ndax fu mu jénnee fa la ñuy jénnee moom mu nekk milliardaire Anta baabakar ngoom nañ ko bàyyee ginaar yi nañ ko bàyyee ginaar yi mu góor góor lu ci. ndax ngay voté mënta yore réew man Cambérène laay wootee. incha allah waaw dimanche di nga teel dem ko. incha allah damay xëdd dem voté ji waaw bu soobee yàlla waaw ndogu jibile su mënula am nag man sama carte moom pare naa pour voter Sénégal. président ngeen nar a de ba kee bu falo. waaw loolu wax ju yàqu la président kenn la mën a doon waaw président moom kenn la mën a doon mais conseil mënta ñàkk waaw. waaw kay jërëjëf. sëñ bi maa ngi lay nuyu. la. Lincoln kon Choose tey ñuy def sondage si li nga xamante ni moo di 19 candidats yi yow kan nga ci àndal. Jomaay laa àndal. waaw lan moo tax choix bi doon Jomaay. choix bi parce que système am doy nañu ak nu mu ñëwee pour changer système bi loolu doy nañu quoi moo ñu convaincre en fait te war nañu jub voilà moo doon ñu. yow Jomaay lan la teg ci kaw table bi loo xam ne convaincre na la. ah changer système bi rek comme ni mu ko waxee bale système bi mooy ñëw bale système bi. parce que depuis loolu xam nga ñu fi nekk à chaque fois même chose la ñuy habitude quoi moo loolu kese la quoi parce que on est des jeunes xam nga waaw ah, tey jii ku nekk ak ki la doy quoi choix la rek choix la te ñun suñu choix jumaa la quoi man maa ngi góoree Géejawaay incha allah incha allah man kay xëdd rek waaw takku jóg am na yaakaar dañ koy jël incha allah incha allah dañ koy jël ok merci jaay dama sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi naka la. Cheikh Cheikh Ndiaye. d'accord Cheikh Ndiaye tey ñuy def sondage ci élection yi nga xamante ni daal dinay euh, jublu dimanche incha allah euh, yow kan nga àndal ci 19 candidats yi. maa ngi àndal président Ousmane Sonko ab Diomaye waaw. moo tax que dama gis ne moom it moo mën a génnee mën situation bi. situation bi Sénégal yi dund ñoom it ñoo mën a génnee parce que Sénégal dafa metti Sénégalais yi dañu dañoo sonn yaa ngi dégg ñi fi nekk rek suñu xaalis ngeen fi nekkee duñu wax dëkk yaa ngi dégg di nax askan bi nit ñi ku feebar doo faju nit ñi mënatuñ jàng dund bi cher ah, dëkk bi désordonné na ah, foo dem doo mën a dox tali bi def xam Sénégal daa mu ngi noonu daal waaw Sénégal mu ngi non yàgg na ma convaincre yàgg na parce depuis yaa seetaan seen déggu seen programme jàng ko bu baax xam ne instant yi mën na génnee Sénégalais yi si situation bi nekk waaw. ki nga xam ne moo di Anta Babacar Ngom dégg naa moom nga àndaloo. non non non soit euh, programme am neex na ma mais na toog ba si kanam na xaar ba si kanam quoi waaw parce que déglu naa ko xam naa ne tam bëgg na liggéey Sénégal euh, am na am na mature bi mais na xaar si kanam quoi waaw maa mu ñëw jàppale Diomaye waaw waaw mais Diomaye. non à ce moment non non que bu Anta jiitoo woon dañuy nekkaat dañuy delluwaat si ginnaaw comme Amadou Ba parce que épouser Sonko yombut parce que Macky Sall mi nga xam ne ñoom ñëpp mooy jàng politique mu munu dëkku Ousmane Sonko tey bu falee euh, Amadou Ba tamit dañuy nekkaat 2021 yi ñu dundaat. parce que Amadou Ba mënul tenir Ousmane Sonko c' est impossible. mais non parce que man dama jàpp ne ñun ay complexe ñun Sénégal complexe boobu dañ ko koy dindi parce que bu ñu jàppee ne Diomaye dafa nekk xale mënoo jàng jàng ba toll niveau bi nga toll Sénégal normalement sax Sénégal équipe boo ko way gérer si yoon équipe c' pas un benn nit mënul gérer Sénégal. parce que tey Sénégal ñun dañu woy taxaw pour jóg développement la wax dañu woy commencer développement développement nag bu ñu koy commencer du kenn nit moo koy def il fallait que ñu jàppandoo si pour mu mën a dem waaw man fi ay voté Guédiawaye waaye incha allah huit heures dina ma fekk foofu waaw may woo Sénégal yi yëpp nu yëm suñu ràq yi suñu yaay yi suñu papa yi coono bi nu daj ñu jéem a yeewu ànd gars yi nga xam ne nouveau génération bi Macron bi muy jë France ñëpp dañoo waxoon ne Macron dafa nekk xale te defe naa France tey actuellement mu ngi doxal kon Diomaye nekk xale tey nga jiitee yaa ngi dégg am na niveau bi te defe naa yi Sénégal yi yëpp ñëpp jàng parce que boo xoolee bu njëkk yi xewoon si jamono yi mag ñi jàngul yow da ngay nekk sa kër nga nekk sa doom sa doom bi mu xam si téléphone bi sax yow mi yaayam doo ko xam kon Sénégal moo avancé waaw ok merci beaucoup. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi la. maam set tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo di élection bi nga xam ne daal dinay ñëw nekk dimanche incha allah ñu ciy def benn sondage bu ndaw ci 19 candidats yi yow kan nga ci àndal. man Diomaye. moo tax choix bi doon Bassirou Diomaye Faye. man projet la toog lu la convaincre. Ousmane waaw. mais xalaat nga ne basiru Diomaye moom yor na mën na yor réew mi. mën na ko yor kay waaw. ah xam nga man nag lu may gis-gis man nag lu may gis réew mi damay dégg ñu naan booy bi amul expérience amul expérience te ñoom ñu ko yor yëpp 1960 ba lii ñoom ñu yor ne réew mi yëpp réew mi doxul te ñoom ñu ne ñoom ñoo na kon na dañ ko jox bi xamul expérience ñoom ñoom ñoo ñoom ñu yor expérience ñoom mënuñoo kii réew mi kay nañ ko jox booy bi moom man loolu laa gis man. booy bi waxuma la réew mi dafay booy bi monde bi sax mën na ko yor. Diomaye Faye koo gis ni Diomaye Faye doo xam la réew mi moo ne bi sax mën na ko yor waaw. Idrissa Seck dama neexut rek jeex na tak du xalaat neexut rek loolu jeex na waaw man fii Dakar waaw yàlla en tout cas lu ma neexal dinaa woote incha allah moom. 18 heures ñu taqaloo ko waa mu jox taaj 18 heures ñu taqaloo ko waa maa ngi koy sëril sax midi ah ñu xam nga benn benn adversaire la ñu am bi mooy Amadou Ba ah, waaw. ban surprise maanaam si ñoom lay kii kay ay ñun moom wóolu na suñu bopp waaw jërëjëf. bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. Mouhamed ñuy def benn sondage bu ndaw ci li nga xamante ni moo di élection yi nga xam ne dimanche la incha allah ci 19 candidats yi yow kan mooy sa candidat. Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw. lan moo tax choix bi doon Bassirou Diomaye Faye. parce que projet bi la projet bi la ñun ndaw ñi projet bi la ñu yaakaar mu ñu Sonko moom la ñu jaay depuis 2014 ba léegi gars yi di si liggéey ba 2019 ñu porté ko yàlla nanguwul mais teewul bàyyiwuñu suñuy suñuy frère. ñu nag ñoom ñoo si nekkoon di ko jaayante ñu ñu tëj leen si kaso bi ñu yàlla jël seen bakkan te ñu di ñu gën a gore quoi te projet bi daf ñu doy loolu moo tax ñu fas yéene wooteel Bassirou Diomaye Diakhar Faye incha allah waaw réew réew réew mi ku ne mën na ko yor c'est sénégalais ñoo xaw a complexe léegi suñu bopp quoi parce que lu yor réew doomu aadama lu yor réew loolu yàlla rek moo mën a yor nguur mais nguur yàlla yi ku nekk daa am lu mu la ciy dénk. léegi du personne du personne Diomaye Faye mooy yenu Sénégal di doog moom waaw biñ ko falee day fal ay ministre fal ay DCF ku nekk ak li ngay liggéey mais moom doy nañu parce que moom jàng na fu mu war a jàngee doomu réew mi la fi la juddoo fi la yoroo jàngee fii defee fi léppam formation am jaaree fi euh, nu mu tudd liggéey impo domaine 15 ans 15 ans sàccul saccul ñu tëj ko ci ngorom mu génnaat ci ngorom moom la ñu àndal te doy nañu incha allah waaw. dégg naa Anta Babacar Ngom sa candidat la woon. non non Anta yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que jigéen ju mën góor la waaw. non no Anta waaw non non wax ma mënul yor réew mi de mais man Basirou laay wooteel Anta yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw parce que jigéen man Anta moo ma gënal ñeneen ñi moo ba ma leen tudd sax xam nga rek xam nga bëgg ma may kenn bës ay gaaw a jooy ay gaaw man dama dama bëgg man da man maa wax dama bëgg ñu boole ma. ak euh, kii nu mu tudd gaaw a jooy ñu booliñ ci plateau ñu waxtaan gaaw a jooy ma fa laa a yem waaw moom Pape Djibril Fall mu ne ñu boole ñu boole ko kii plateau Jomaay Jomaay du moroomam na ñëw jàkkaarloog man ñu waxtaan ci idée ak dé ak débat Sénégal Pape Djibril maa moom ñu debaa Pape Djibril bu fekkee waxtaan si réew mi la na ñëw man la tolloowal man commerçant bii di jaay fii ay daal man la tolloowal ñu waxtaan ci ci dëkk bi non bokku ñu waaye jomaay li si waa jomaay jomaay beneen niveau la nekk parce que da naan amul expérience sàcc am nga politique ñaar moo fi nekk jub-jubal waaw Sénégal na la ñu tuddee politique mooy ku ñuy nax di ñu sàcc tey ndaw ñi amuñu liggéey hôpital yi suuxe nañ yow Amadou Ba Amadou Ba nan lañ koy falee Amadou Ba nekk si ñu jiite réew mi 12 ans réew mi jëm kan xanaa mu ne cinq réew yu gën a dellu gannaaw Sénégal ci la bokk waaye léegi 12 ans yëpp Amadou Ba mu ngi woon si nguur gi ah Amadou Ba moom nan lañ koy fale moom fan la nekkoon Amadou Ba bu mënu defar 12 ans yëpp liggéeyuñu Sénégal moom mun nañ ñu fal ko fi ministre bu doon ministre dëmm fal nañ ko fi. mais côté Amadou Ba xalaatoo na am. non surprise mënul am Amadou Ba dañ koy faj sàcc moo mun a am te bis bu ñu sàccee élection yi xam lépp dëgg la déew mi ñun ñoo ko moom nag ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo suñu maam fii la juddoo fii lañ yaroo ku juddoo fii yaroo fii la ñuy fal. doomu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñuy fal am na yaakaar 100 pour cent dénk suñu bopp yàlla parce que ñun suñu xeex bi mënul neen eh, ni eh, yaay boo xool ma fii ay ay ñun ay ay suñu morom ñu bëri dañ ci gaañu de senegal ay milliers de doomu Sénégal ñu ngi ci ndox mi de yaay booy barki Sëñ Fallou ay milliers de Sénégal ñu ngi ci ndox mi te ñun ñu gën a gore de projet bi dañ koy porté de lu mun laaj dañ koy def gars yi bu bu laajaatee ñu jàpp ñu yóbbuwaat ñu dañuy demaat ñu ragaluñu loolu parce que ñu dee ba pare du ñu gën a gore réseau bi lu mu laaj dañ koy def man fii laay wootee damay wo xëdd dem woote toog fa nag sécuriser sama vote damay sécuriser sama vote sama damay toog ba ñuy joxe résultat yi man fi ma bureau bi may wootee kenn du ko sàcc kenn du ko sàcc damay fa toog ba résultat yi jeex ma yenut la affaire bi soog a dem man bureau bu may wootee dama leen di wax amul amul cent franc du ko sàcc damay woote toog fa na leer seen bopp yi merci jërëjëf yàlla ngeen. waaw ba dimanche. Euh, le lundi ñu joxe kii bi cadeau bi waaw lundi mooy cadeau bi saa yi day anniversaire. Euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si. bi naka la. man Modou Ndiaye laa tudd. Modou Ndiaye ñuy def benn sondage bu ndaw ci élection bi nga xamante ne nii daal dinay ñëw nekk dimanche incha allah ci 19 candidats yi kan mooy sa candidat. man euh, Diomaye fay mooy sama candidat. lan moo tax choix bi doon Basirou Diomaye Faye. waaw parce que ñun. moom la ñu préféré Sonko moo ñu ko joxuñ te it euh, mu mu nekk suñu préféré nag mooy préféré jeunes yëpp yu si ëpp genn wàll gi Diomaye Faye la ñu wise mhm. ci programme mu Diomaye Faye lan moo la ci convoqué. ah Diomaye Faye programme am man li ma gën a neex ci moom mooy comme si que booy dénkaane mu ne loxo yu set tàllal ay loxoom set booy dénk dangay dénk ki nga wóolu. te moom loo xam ne seet na léegi nag moo tax ñu préféré ko te loolu rek dafa doy booy dénk nga dénk koo xamante ne am nga si moom confiance comme yow boo ñëwoon di ma dénk ma tàllal ne damaa jub nit ñi seede ko ne damaa jub mu taxaw wax ne dafa jub loolu doy na si koy dénk nga dénk ko nga xam ne yow doo ci am loo ciy regretté programme am macha allah wàllu mbay mi daf ñu koy daf ñu ko daf ñu koy incité te loolu mooy développé am réew te loolu li ko fattoon mën na am bu ñëwee dina ko fettarsi dëkk bi dina si mën a gis boppam si loolu. Mhm. mais dégg naa Amadou Ba moom nga naroon voté. non Ba moom bu ma ko voteelee l'islam dal sama kaw parce que Amadou Ba dafa jubut bu ñu leeraloon ne milliards am yi mu yore fii la ko jëlee ñu mën ko voteel mais yow Amadou Ba bu ñu ne ko kaay sa milliards yi nga am foo ko jëlee du ñu ko leeralal Amadou boo ko voteelee rek mën ngaa seet dem safara Amadou moom voteel ko erreur risque la mënul. maanaam votel Amadou Ba sax mooy maanaam nga votel Macky Sall bi nga xam ne 12 ans la fi def te 12 ans yi mu fi def moom maanaam daf ñoo delloowaat ci suñu buumu ñaameel nga ñu tubaab bi ñu notoon moom la ñu joxoon ndax gars yi ni koy waxee mbaaw grand mbaaw zac mbaaw petit mbaaw ñoom ñëpp ci mbaaw gi la mooy wane ne ñoom depuis Senghor ba léegi Senghor bi nga xamante ne si moo ñu njëkkoon a jiite tubaab yi jël ko jàngal ko seen jikko jàngal ko nasaraan bi wan ko ba nga xam ne mooy nit ku ñuul la mais tubaab la si biir ay jëfam ci ab biir Afrique parce que dafa ñëw ba mu ñëwee dafa waroon na jël Afrique liggéey ko liggéey boo xamante ne si liggéey bu mucc ayib la mais dafa ñëw continuer fi tubaab yi tubaab yi noot ñu jox ñu indépendance naxee ñu Senghor Senghor jàpp ñu yàq ñu suñu dëkk bi yàq ñu dëkk baa ngi nii amul benn garab boo xam ne lu ñuy lekk ay nepp-nepp ay garab yoo xamante ne si yàq suuf si yàq mbay mi yàq napp gi yàpp lépp loo xamante ne si li mu yàq dafa bëri Anta Babacar Ngom jàmbaar jigéen la wax dëgg yàlla mais Anta Babacar Ngom ñun doyuñu ci réew mi Anta Babacar moom dëgg-dëgg maire bu yaatu sax maanaam maanaam gox bu ndaw sax man amaana buñ bu ñu ko laajoon ñu jox ko ko mais lu toll ne réew mi ak réew mi ni mu feebare foo laal day métti duñ ko jox koo xamante ne si wóoluwuñ ko Anta Babacar Ngom moom merci Anta Babacar Ngom ak yeneen gars yi si des moom dañuy xaar ñun wax dëgg yàlla bañ dalee xeex projet ñun xeexuñu pour Diomaye projet bi moo ñu tax a jóg te projet bi depuis boobu ba léegi ñu si nekk moom ci lañ nekk bu dul woon ak Jomaay mu nekkoon keneen koo xamante si projet bi la nekk moom la ñuy àndal mais foofu heureusement Jomaay mi nga xamante ni boo demee di seetaan ay vidéo am yàgg na xeex loo xamante ne si nii nit ñi dañ doon jaay doole borom suuf si ñi nga xam ne dañoo am doole di jéem di jéem a nangu suuf si baykat yi yàgg na si xeex ba dara dootul nulee dara kooku bu demee ba nga xamante si moom mooy dogal kon dalay leer na du dogal loo xamante ne luy gaañ ñëw gi doole gi la te yàgg na wax ne ranguñu patron yi nga xamante ne si ñoo nekk ci kaw ñooy xëy ñooy siim cerey baadoole yi yàgg na ko kaas moom kon bu nekk ay président moom ay ranguñam instant bii nii du ñu siimal suñu cere. am ngeen yaakaar dimanche. dimanche moom ñun dañuy doggali ne ngeen nañ mais nag dañuy bëre koo xamante ne si nii a daan ndax day sàcc quatre appuis du ko daan jël bu leer du ko daan. ñi ngeen di bëreel bëri na 19 candidats la. 19 candidats yëpp moom moom yi sax dañ ko si soupçonné mais 19 candidats yëpp duñu ay candidats dañuy gunge Diomaye ci élection yi campagne ñu ñoom maanaam làmb ji bàkkuwuñu tuusuñu te duñu bëre ndax daan nañ ba pare mais Macky Sall si bam jël bu leer nañ te ba si kaw teg ci suuf bàcc bàcc yu métti ba mu tëdd mooy tax du mën a jog mais si sinon yu ndaw ndawaan yi day day pilaxe gars yi dóorkat la day dóor Colobane fii li Colobane laay voté si man nag du ma teel dem ndax dama préféré ma ma jihaat ko ci naaj bu tàng bi ma bàyyi nit ñi nga xam ne mag ñi même man naa rang sax ba ca kanam ma jox mag ñi ñu dugg man ma delluwaat rangaat parce que affaire bi si boppam dañ ko war a méttil te nañu nañu nañuy préparé si bureau de vote yi ñu koy ñaax gars yi ñu teg fa ñoo xamante ne si da leer ne compte bi dina jaar yoon njuñ njaaj gi mën naa ñàkk sàcc gi ñu siy bàyyi xel loolu ci àll bi nga xamante ni surtout ma côté Fuuta Macky Sall dafay sàcc chaque année suñ mbokki Fuuta yi bu demee da ngay gis xale yu ndaw yoo xam ne matuñu voté sax dañuy voté ci élection yi passé ñu ñu loolu noonu pour que ndam bi mën a ñëw ñun daal di ndogu daal di jubile xëdd bi moom dañuy xëdd ñam tuuti lal bi soo koy dem voté ji incha allah ndam rek la ñuy am incha allahu rabbi. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. naka la. Ibou Guèye. Ibou Guèye tey ñu ñëw Colobane di def benn sondage bu ndaw ci élection bi nga xamante ni daal dinañu koy dégmal muy dimanche incha allah ci 19 candidats yi yow kan mooy sa candidat. waaw man de dama libre may tànn kii ma neex kii ma ci neex daal laa gis ne mooy Amadou Ba. Hmm. lan tax choix bi Ba. parce que dama gis ne président sorta bi fi nekk ak mébét yi ma amoon ci réew mi ma xam ne yëpp matul te moom nee na am na yéene mottali ko fas yéene ànd ak moom mottali ko rek. la këmer këmer tey Amadou Ba bu jëlee réew mi yow am nga njottu ne dina mottali li nga xamante ni moom motul ci réew am naa ci yaakaar politique la nag ndax euh, nguur day soppi nit loolu moom comme ñun yàgg nañu suivre xam nañ nguur day soppi nit mais ñu ngi koy ñaan bu mu soppeeku rek su fekkee moo gañe na wéyal mébét yi li nga xam ne wax na ko daal doy nañu yaakaar nañ ne war na ko mën a def su booba li ma convaincre ci li mu gën a wax mooy lépp réalisa bépp réalisation boo xam ne président def na ko fi am naa yéene yokk ko mais duma ko wañ te ma gis ne lim amoon yéene yokk ko ci réew mi li mu fi def boobu kenn werante wu ko durant cinq ans bu mujj bi li mu fi des dañu yàq ko bari na lool su fekkoon ne dañ ko fee bàyyi def leneen konoon dinañ teg yeneen jéego yoo xamante ni dina gën a jëm kanam daal waaw mën gëw ma ne Sénégal kenn nit rek moo ko mën a yor borom xam-xam yi bari nañ te yaakaar naa ñoo wàccee si géew mi kon même su gañee moom yi tamit na andi loo xamante ni dana satisfaire réew mi loolu moo gën bu baax bu baax waaye que ku gañe rek nañ fexe defar réew mi mais bu ñu wax ne kii laa àndal comme gañewul rek lépp lu waaj a def dama ci xëpp suuf loolu baaxul ci réew képp kuy politique ngir réew mi moo tax mais du intérêt personnel képp koo xam ne yaa ngi jóg ne man suma ma fekkee sama waa parti gañewul keneen lu bu ñëwee ci réew mi lu mu fi def ma suul ko réew mu arrière la ñuy indil te ñun dañoo war a dépenser foofu esprit daal ñoom nañ gën a nañ dépenser loolu yàq. Hmm. merci beaucoup man Dakar fii laay wootee. Hmm. mun naa sax bañ a teel dem mais sûr que certain dinaa woote moom euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. naka la. El Hadj Alioune Diallo ñuy waxtaanee euh, li nga xamante ni moo di élection yi nga xamante ni dimanche lay doon incha allah ci 19 candidats yi yow kan moo ciy sa candidat. man Amadou Ba mooy sama candidat. lan moo tax choix bi doon Amadou Ba. waaw si discipline yar ak gim propose Sénégal yi nga xamante ni. war na ma jikkooy saali yi na nga xam ne buñ koy buñ buñ ko tooñee euh, du fayu maam buñ ko waxee lu ñaaw du delloo lu ñaaw moom lu rafet lay delloo te yonent bi sallallahu alayhi ñu jàngal ne euh, gën ci jikko yi mooy al yaddul xulaa xayrun min yaddil suflaa maanaam loxo bi féetee kaw moo gën loxo bi féetee suuf loxo bi féetee kaw mooy bu ñu la waxee lu ñaaw yow nga remplacer ko lu baax loolu rek man doy na ma pour ma ma tànn ko pour mu nekk pour mu suma candidat Amadou Ba loolu rek doy na ma. Sonko Ba waaw comme tout à l'heure li ma la njëkk wax rek mooy euh, jaar na si ay fonction lu mel ni euh, jiite nu mu di impôt et domaine jóge koo fa nekk si gouvernement Abdoulaye da jóge koo fa nekkaat si gouvernement Macky Sall te mosuñ ko dégg si nga xamante ni euh, yëfu caaxaan la mu nekk nit koo xam ne ku responsabilité la. li muy jëf moo ëpp li muy wax euh, le fait que loolu noonu man si laa def sama analyse ma xam ne kii doy na ma te pare naa pour dénk ko sumay choix en tant que citoyen ku bëgg réew mi avancé ma dénk ko sumay choix mooy bëgg naa Sénégal dem ci kanam euh, bëgg nañ jafe-jafe yi nga xamante ni moom la àdduna bi nekk réew mu nekk da si am part de responsabilité réew mu nekk day tànn njiit njiit loolu noonu population bi moo koy tànn population bi dañuy am seeni choix yaakaar ko si moom jiital ko man yaakaar boobu nag ma am si njiit Amadou Ba moom si doy comme 19 candidats yëpp hmm. bu baax bu baax mu gagné premier tour sax incha allah parce que yàlla noo xam nga Sénégal euh, le fait que nit taxaw ne jox leen ma réew mi ñu ñu ñu ñu d'accord si fukki nit ak juróom-ñeent ñu ne ñii ñoo ñoo ñoo war a laaj réew mi. ku si nekk da am si ki nga yaakaar ne moom nga yaakaar ne moom mooy jël réew mi euh, maanaam après élection yi candidat yëpp dañoo war a dem renti wu si benn candidat bi nga xam ne moom la yàlla fal ñu ànd defar Sénégal mais ñu bañ def li nga xamante ni amoon na fi 2019 ba 2024 muy lu métti loo xamante ni sénégalais yi souffrir nañ ko mooy politiciens yi dafa am ñu gagné am ñoo xamante ni d'accord ne gagné wuñ ñu nekk di xeex durant 2019 ba 2024 xeex boobu noonu Sénégal gagné wuñ ci dara dañ see perte comprendre kon euh, muy Diomaye muy muy muy Amadou Ba muy Khalifa Sall muy euh, Déthié Fall muy ku munta noonu bu yàlla falee ne kii moom mooy gagné réew mi ñeneen ñëpp dañoo war a ñëw rangé wu ci gannaawam ñu ànd liggéey Sénégal parce que bu nekkee Sénégal moo la ñor euh, bu bu bu bu Amadou Ba gagné ñoom Diomaye ñëpp dañoo war a ñëw nekk si ginnaawam indil ko ay idée comprendre waaye parce que inna wa inna itinaal Moussa ay ni kimia yonent bi sallallahu la wa sallam mu doon sonn yëpp pour soppi jamono la woon kon Amadou Ba tey ay campagne muy fanaan ci àll bi Diomaye ay campagne muy fanaan ci àll bi yëpp pour soppi Sénégal la comprendre du pour soppi boppam Amadou Ba tamit du pour soppi boppam comprendre kon tamit bu nemee ba nga xamante ni yàlla fal na ko pour mu war a jiite réew mi na ko sénégalais yi dimbale encore une fois ne kii moom la yàlla teg si réew mi nañ ko dimbale may ko confiance bañ ko di ko découragé loo amul njëriñ buñ ko découragé loo bu yàqulee sénégalais yëpp ñoo yàqule bu defaroo sénégalais yëpp ñoo dàq ñoo def man Colobane lay wootee Sankoura Badiane bureau allah moom kay mooy xëdd di dem mooy dem xëdd dem bu ma bu ma votee ba pare toog xaar bàcc yi allah waaw Gorine waaw merci beaucoup. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw soxna si ñu ngi lay fay. tur bi naka la. man Ibrahima Sène bu Sonko. Ibrahima Sène tey ñuy def sondage si li nga xamante ni moo di élection yi nga xam ne dimanche la incha allah si 19 candidats yi kan nga ci àndal. non fii moom jarul ñuy def sondage naan si 19 candidats yi euh, kan lañ àndal wala parce que yow yow mi ma posé question bi sax xam nga ne sondage bi kenn moo nekk si kaw muy le président Diomaye Faye le candidat du peuple nga xamante ni le président Ousmane Sonko moo ko jël jox ko Sénégalais yëpp. pour mu jubanti réew mi jubanti Sénégal kon yow yow ma posé question bi sax xam nga bien que euh, sondage bi am tey actuellement si réew mi mooy que le président Bassirou Diomaye fay moom moo nekk si kanam moom moo jiitu waaw te aussi incha allah non li tax ñu tànn Bassirou Diomaye fay nekkul hasard parce que au fait yow boo xoolee situation dëkk bi ni mu demee. ak li fi jot a xew passé yëpp xam nga ni candidat bi si si 19 candidat yëpp candidat bi nga xam ni moo gën a placé moo gën a apte pour jubanti réew mi et en plus développer réew mi c'est le candidat du peuple Bassirou Diomaye fay non boo bëggee dégg dëgg moom ah, euh, projet bi ñu teg. Euh, le président Bassirou Diomaye fay ak euh, Ousmane ko jiite ko man je pense que lépp lépp ñu convaincre waaw lépp doy nañu au fait parce que lin nañ euh, projet bi déglu nañ leen seen communication ak seen lépp en plus man jàpp naa ne projet bi amul leen laa xamal nii ni nañ ko remettre en cause yow wala ñu si am xel ñaar parce que lépp lépp doy nañu à cent pour cent non c'est parce que ñun mënuñu nekk depuis 12 ans ñoom ñu nekk fii yore réew mi xam nga si façon bu leen neex à un certain moment ñu ñëw ba ñu proposer ay candidats de la continuité instant yi réew mi yow moo soxla changement te changement boobu dama foog ne si Bassirou Diomaye fay la nekk le président Bassirou Diomaye Faye te xam naa ne aussi loolu incha allah yàlla yàlla ñu ci dimbali ba changement boobu ñu bëgg yàlla may ñu si ndam le 24 février incha allah non non ba Anta Babacar Ngom moom mënut a loolu moom dama la ci tontu directement mënul falu non non c'est parce que dafa mënul falu Anta Babacar Ngom ya fan la mën a jaaree pour gagner Sénégal c'est am na question ya nga xam ne soxna si euh, nan wax nan waxante dëgg quoi yow bu ma ko posé sax yow xam nga ne da ma koy posé rek pour laaj ma ko mais yow xam nga ne Anta Babacar Ngom mënul gagner no man sama localité laay voté Bambey waaw plus précisément Bambey séeréer non damay suba incha allah lu ma jàpp dama koy baay waaw parce que waaw Macky moom foog ñu dóor ko te foog ñu dem si mbañ gàcce yi aussi mën koo dóor foo bu baax non ñun ba ñu amee yaakaar du tey ba ñu yàlla joxe le président Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye lan am yaakaar 100 pour cent te incha allah le soir du 24 février euh, non non le le soir du 24 mars. incha allah dañuy gagné élection yi au premier tour nag amul deuxième tour dimanche moom ñu tàggali ko ñoom waaw d' accord merci. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. Cheikh Diagne. Cheikh Diagne tey ñuy def benn sondage bu ndaw ci élection yi nga xamante ni daal dinay ñëw 19 euh, candidats yi yow kan moo ciy sa candidat. man Basirou Diomaye Diakhar Faye mooy sama candidat. moo tax choix bi doon Basirou Diomaye Faye. waaw choix bi mooy Sénégal depuis année indépendance yi ba léegi xool nañ ni ñi fi jaar ñëpp ah, daanaka même même même famille bi rek lekk xaalis naxaate waraate loolu lañ gis si ñoom te nag loolu dafa yàgg ñun lu jiitu suñu juddu ci loolu lañ loolu lañ juddu fekk ko fi te ba léegi moo fi daw te nag loo xamante ni baaxul ci askan wi te baaxul tamit nag dafa jot ñu changé ko loolu moo tax man ma choisir Diomaye Faye waaw waaw parce que gérer réew moom li ñenn ñi di wax loolu dañuy manipuler rek parce que Emmanuel Macron yaakaar naa bi mu yor France 39 ans la kon réew du ci ay âge wala yooy mais xam-xam la te ñun jàpp nañ ne Diomaye am na compétence bu ëpp sax yor réew kon nag ñun loolu lañ jàpp ñun jàpp nañ ne li ñuy wax dañuy manipuler nu ñi rek waaw programme Diomaye fay li ma ci convaincre bari na. man naa la ci del benn rek bi ci njëkk mooy càcc gi jóge fi loxo yu set wecc loolu rek doy na sëkk loolu boo amee ci am réew rek réew mi daanaka li ci des lépp gongo. xalaatoo ne surprise mën na am ci diggante Amadou Ba Anta Babacar Ngom sa Seck ak ñeneen ñi si nekk. surprise de bu dee am xanaa mooy jomaay ñàkk gañe loolu de mooy doon surprise waaw mais man moom no jomaay bu gañe du surprise. jomaay moom bu gañee ñëpp dinañ xam ne jomaay mii lu li nekk ci moom lu tax mu war a gañe mi ngi ci moom bu ko ñeneen ñi gañee nag loolu mooy surprise waaw non Amadou Ba nee la bu nee la bu ko tudd ci commentaire yi man kooku sama jëmm ji dama ko araamal moom dama ko ko araamale man Amadou Ba waaw man Saloum incha allah sama village dëkk bu ñuy wax ba soleel incha allah rabbi su ma deewul dinaa teel dem dinaa teel a voté ji bu ma voté bi nag tamit dinaa toog sécuriser sama vote incha allahu rabbi waaw ba lépp pare waaw li xale yi di wax xëdd voté ndogu sibile incha allahu rabbi le 24 mars ñu jox jomaay réew mi mu doxal changement am jërëjëf incha allah. kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Modou Fall. Modou Fall tey ñuy def benn sondage bu ndaw ci élection yi nga xam ne ñëw na di dimanche incha allah ci 19 candidats yi yow kan nga ci àndal. man Diomaye la àndal. Bassirou Diomaye Faye. moo tax choix bi doon Bassirou Diomaye Faye. mooy mooy xale te moo xew moom dalaa gis man ñi fi nekk ñëpp doon fi tudd kenn ku dul Diomaye. ci programme mu Diomaye lan moo la ci euh, convoqué maanaam lan moo la ci. Diomaye day xale te euh, Sonko moo na ko jox Sonko comme ni nu kooku la rek kooku la comme ni kooku rek kooku la Diomaye ñun xamuñu ko woon Ousmane Ousmane Sonko moo tax ñu xam ko loolu rek. jàpp ngeen ne euh, Diomaye mën na yor réew mi. Ah, man de jàpp naa ni kun ni Sénégal kun tànn ni kooku mën naa yor réew mi mën naa yor réew mi. mais ñu ne Diomaye amul expérience yi li nga xam ne moo di politique aussi. Macky Sall lan waxoon ni amul expérience waxoon nañ ko de kon loolu moom du du lu bees ku ñëw ku nekk gan ñu ne yor réew na gañee rek bu gañee ni mu jor réew mi moom mën na ko moom xam na ni mu yoree. Ahmadou man kooku dafa jeexal aw turam sax mu tumu koo dégg Anta Babacar Ngom ñooñu wax dëgg dañuy doogo a door ñooñu kooku ay balam jeex na man daal bu bu bu jomaay jàllee ragal naa bu dul pire du jomaay loolu laa ragal jomaay daal mooy mooy mooy priorité man dëkk bi laay wote suñu dëkk Loora waaw ay midi yooyu. bu soobee naa foofu moom ñoo ko moom waaw merci incha allah jërëjëf. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi lay fay soxna si. naka la. Cheikh Tidiane Gueye fii si. Cheikh ñu def benn sondage bu ndaw ci li nga xam ne moo di élection yi xam ne dimanche lay doon incha allah ci 19 candidats yi kan moo ciy sa candidat. man ku ci sama candidat Mame Boye hmm. moo tax choix bi nekk Mame Boye Diao. moo tax choix bi nekk Mame Boye Diao Mame Boye Diao dafa doon maire Kolda boo xam ne dafa liggéey ba ñëpp teg si seen bët. man nag man Mame Boye Diao dafa doon ni ko dafa ma doy ndax dafa doon euh, maire ba pare jàppale euh, goxam jàppale ndawi ndawi ndawi goxam man loolu moo tax man ma préfère Mame Boye Diao hmm? lan moom si confégal muy Mame Boye Diao programme moo normal maanaam dafa liggéey dafa liggéey si maire hmm. waaw si liggéey rek waaw am naa si yaakaar trop ndax dimanche sax dañuy ñëw bu soobee suñu borom ma ci affaire du wax du dem deuxième tour premier tour maam buy jaaw dina tas mag bu soobee suñu borom. moo tax suwaa bi nekkul Anta Babacar Ngom. moom wax dëgg yàlla takk rek laa bëgg si moom waaw kese. da bëgg a sëyali wala. moom mën naa ñëw sëy bu ñëwee sax ñu laaj si maire bi. a ah, doone ah. Anta Babacar mën na jël mi. non Anta ah, ah si kanam waaye du doon instant bi nii nii nii nii moom waaw. ah dimanche man maa ngi woote fii nii marché euh, maa ngi woote Kër Moussa. Hmm. bu soobee suñu borom sept heures maa ngi takk sama daal di dem. bu so loolu kay xamul si kisaak si Mamboy Diaw rek léppay leer. jaajëf kontaan nañ. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. bi naka la. Mouhamed Ba. Ba tey ñuy def. ba bi ak baw Amadou Ba bi bokkuñu baw pël Fuuta la man baw ci réew mi laa dëkk. waaw ci réew mi ci réew fi laa juddoo yaroo fi màggee fi waaw ñu xam samay juróom-ñaari maam ñëpp. tey ñuy def sondage si li nga xamante ni moo di élection yi nga xam ne ñëw na di dimanche incha allah ci 19 candidats yi yow kan moo ci sa candidat. tuub ko sondage amut ay nawle la ñuy sondage mais ñu am du seen nawle waaw maanaam 19 yi ñaar képp kenn képp nga ci mën a wax moom mooy kilifa gi mooy président mais ñi ñëpp ñoom sax dàll yu ma sol ñoo yem képp duñ dara. Amadou Ba bu doon jàmbaar la Parcelles Assainies géem mën na fa am dara waaye mënu faa gañe waxuma laa nag mag moo xam dem nga ba dikk ñu naan dañ lay dénkum réew kooku kenn du ko dénk réew mi ci kàttanu yàlla ak yonent bi waaw laajaatal leneen. d'accord ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye lan moo tax choix bi doon moom. waaw choix bi mooy liñ gis ci usmaan Sonko lañ gis ci moom usmaan mooy Diomaye Diomaye mooy Ousmane. maanaam mën naa yor Afrique incha allahu rabbi magum réew mi senegal lu ndaw la ci Afrique yaa ngi may dégg Diomaye ku ko dénk Afrique yor ko xam lu waral loolu. dëggu na jub na bari wuti wax joob lu bari nit ñi nag xama kuñ xam ku bari wax koo xam maanaam parleur nga Sénégal dafa bëri politiciens yoo xam ay parleur lañ fu ñu waxee ñu ne leen yéen a moom réew mi fekk na duñ dara Macky Sall mu ñu diggoon ba tey mënu fee def tous moo tax ñu bëgg ko fee jëlee. ci ay programme Bassirou Diomaye Faye yow lan moo la ci convaincre. waaw li ma convaincre mooy li ma xam si moom dégg ko ci moom mooy nitu dëgg la ku fonk diineem la. liggéeykat la yaa ngi dégg liggéeykat nag boo bokkut ak waxkat kiy wër di wax ak kii wër di liggéey weeru dee mun ñoo yam waaw non man xawma ma kuy kooku xaw ma ay Anta Babacar Ngom wax dëgg yàlla xaw ma ko waaw maam man xaw ma Anta Babacar Ngom jigéen daal li ma ci xam dem marché toggub añ da taajal sa jëkkër waaye jigéen muy wërum réew ma xaw ma ko surprise mënut am surprise mënut am yaa ngi may dégg Balla Gaye boo ko booleek yaawu jaal surprise du am surprise mënut am Real Madrid fu mu jàpp Rayo Vallecano tëcc ba moom nooy rek yooyu mënut ne amul surprise lenn moo mën a ne ci kattanu yàlla dimanche saa boo déggee kenn ngi dee kenn kay war kenn ki borom sikkim bee war borom xuuf bi bul sax xalaat man maa ngi voté waa waaw école 10 incha allah incha allah rek fa fanaan soxna si maanaam dafa am loo xamante ni lu wér la. Ama Baldé da ko waxoon doxut mooy sama door roi des arènes bu ma leeree ma dee léegi mais ñun jomaay jiite réew mi ni mu ñu leeree ci kattanu yàlla wallaahi lazim laa la wax de jomaay dina waxuma la ay maanaam dàbbali ay point yu ndaw de da koy jiitoo lu bari saa boo déggee rek voix yi dégg nga looy mille jomaay 3000 voix Amadou Ba 1 jomaay 3000 voix Khalifa Sall 1 jomaay 3000 voix Idriss Seck 0 parce que duñu ay nawle maanaam élection ba mu dalee am Sénégal ba tey benn élection moo mas am Sénégal ñu dem ay nawle nawlantewuñu Ablaye Wade ba mu daan dem élection ak Abdou Diouf nawloo nañ leen Ablaye Wade Macky Sall xawoon nañoo nawlante mais Diomaye ak ñii duñ ay nawle parce que bokkuñu ku takk ba pare ak ku takkul bokkuñu yaa ngi dégg ñii dañoo takk ñu jiñ leen ay sàcc ñu sàcc alalu réew mi ay kër yu am essence seri nga yor ko cim réew moo xamante ni dala leer ne réew yi gën a pauvre gën a dellu ginnaaw ci la bokk waaw mais waay sa waay kooku nga bëgg koo jóor xanaa dañoo bëgg ñoo toroxal ku ko vooteel nag mbugalum yàlla dana wàcc ci yow Amadou Ba ku ko vooteel Idrissa Seck Amadou Ba Khalifa Sall ak ndaw si nga wax xaw ma nu mu tudd yàlla bu ma ko xam ku leen vooteel musiba dina dal sa kaw ku vooteel Jomaay di nga am yàlla di nga am yonent di nga gudd fan di nga am wér di nga fi yàgg ci kattan yàlla ak yonent wi waaw incha ndam rek jërëjëf mbokku internet yu doon safoo di seetaan site bi di wasaare nii lañ leen ko waxee woon tey ñu ñëwoon file ci Colobane doon def euh, sondage si li nga xamante ni moo di élection yi nga xamante ni daal dinañu koy dégmal muy dimanche incha allah euh, comme ni euh, mag ñi di wax rek wura ba dem na këng waxi mag dem dañ taali lu waaye doon jaay léegi mu lamb ndax dimanche coow li coow li dina leer loolu nag sababoon fi suñu ay tànk gannaaw démb nañu ko defee ci sondage bi fële ca Medina gis nañu ki nga xamante ne nii moo di Bassirou Diomaye Faye moo nekkoon favori ci li nga xam ne mooy zonage su démb bi waaye bu tey bi tamit mbir maa ngi noonu dinañu xool kan moo xamante ni moom moo gañeegum ci euh, sondage su tey bii le euh, ci diggante 19 euh, candidats yi eh, Bassirou fay Faye Idrissa Seck Anta Babacar Ngom Déthié ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ci liste bi ñoom ñëpp am na ñoo xamante ni far nañu ci moom yéen nag yéenay xool ku ngeen xamante ni yéen ci moom ngeen faral yaakaar naa ne yéen tamit ci ngeen bokk def leen ko ci commentaire yi bu dee Anta Babacar Sall bu dee ki nga xamante ne ni moo di Bassirou Diomaye Faye ba ci 19 candidats yëpp ñi nga xamante ni far nañu ak moom Amadou Ba ak ñeneen def leen ko ci li nga xamante ni moo di commentaire yi yaakaar li nga xamante ni moo di ndam waaye ak lu mu mën a doon jàpp leen ne Sénégal benn dëkk la kenn mënu koo xar ñaar dëkku teranga la dëkku diine la dëkku lislaam la képp koo xamante ni jël nga réew mi tamit nga sàmm alalu sénégalais yi rek to def li nga xamante ni moom la la sénégalais yi wooloo ba daal di lay teg ci bopp réew mi nii la koy jàppoon ak sondage ba dimanche incha allah jaajëfal leen jox leen rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité jaajëfal xaalis sama doom sama caméraman ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag jaajëf